mairie la yónni fay naa lépp. booy papa ak bàjjen laa jox booy. bu la mairie yónnee booy papa ak bàjjen laa jox booy. bu la mairie yónnee fii fay droit yëpp yëpp yëpp yëpp man ma soo gis la du ma liggéey ci caaxaan bi may ñëw Ndakaaru yor sama saret gént moo naa fi am. fii sama kër la fii maa ko moom ah, ça m'appartient gis nga. booy dañ ciy football terrain pour football la sama kër gii mag tabax nga na man maa ko moom wax yow mii yow lay bëgg a leneen. fii sama kër la. man maa ko jënd diggante cinq ans ma bàyyi ko fi dem ñëw jeu bi ànd ko man dunduma senegal bon donc bu ma. ñëwee eh, fekk eh eh déglul boo leen tukkee defe ni ñi ngeen fi bay yéen leen gën a muus ñun duñ sa morom doo fekk magum jëmm tabax këram ba mu yegg. nit ku baax day am danga bi nga jógee dëkk ba man fii laa dëkk. ya ya yaa ngi dégg jàkk ji biñ koy collé ci xëy fii la ma fekk. ay kàcce ngi kii jumaa la jumaa interesse jumaa ji boobu nga naan jàkk sama teexee la maa ko moom. booy bu fekkee da nga yor man duma ko ñuy xoqatal ba may liggéey liggéeyoo ba may juddu juddu woo. déggoo li ma la bu baax kii sama titre foncier la gis nga ni ma ko. kër bu am titre foncier ak dawant lay am te am naa ko noppi booy jugal fii balaa yow léegi jàmm nga bëgg wala yow magum jëmm di tabax këram ba mu toll nii yor ak dawantam nga ñëw naan ko ay titre foncier titre foncier ca fonce gala jëm damaa bëgg nga lagg nii bu fekkee bëgg nga jàmm nag bu dee da ngeen defe ni boo leen demee ci tubaab yi yéen gën ñi ngeen fi bàyyi ah sa xel mi nax na la de banque aw ma daxaluma eh, gone gu aw ma daxaluma wax ak yow day teggi ndawal la ma daxaluma wax man dinaa dem ba ci yoon bu ñëwee dina ko réglé mbedd ah. maa ngi toppal yoon ma ni mbedd maa ngi toppal yoon booy la dafa ko jógoon dama lay booy dama lay manque añ de mais jaxaj na la xel jaxaj dem laa la wax booy yow man eh, jaxaj laa Koumbe. bu la neexee muy sa jàmm fii maa ko moom. maa ko moom ah. ma ko gi yow yow gone gi yow da bëgg ma talaatalaam alarba la. dina ñëw di jëm ñëwaat ah, baax na. Y a pas de problème, hein? Bonsoir. Bonsoir. Euh, dafa am benn problème bu ma bëggoon régler ah. tu sais euh, moi je vis pas ici ah. je vis en Europe. bon dama jógee Europe euh, ma bàyyi fi benn terrain durant cinq ans ah bi ma ñëwee bon je vis un œuvre d'art mu nekk di ci tabax ah depuis lors bon mais wax ak moom il a même damay insulté ah wax na ba max ma tàjji ma def ma lu nekk te man dama am samay kayit ah waaw titre français bi mi ngi noonu ah voilà il m'énerve ce gars-là hein m'excuse mais il m'énerve on ne sait pas sa il se je sais que c'est monsieur Sow là. Hein? Il m'énerve ce gars-là. Hein? Bon, continuer comme ça, c'est toi qui vas m'énerver encore plus. Je m'excuse. léegi da nga may déglu Europe nga nekkoon tu te comportes de cette manière sois civilisé quand même. ku la fekk fii ngay xuloo ak di yuuxu lan la lay wax mag mu toll na yow donc gis naa ko. li leen boole problème mu kër la c'est ça fii police la du ñu yëngu ci domaine litige maanaam problème mu kër police yënguwu ci dafa am benn brigade boo xam ne dañ ko jagleer pour tout ce qui concerne litige maanaam mbirum suuf litige waaw ngi tudd brigade d'Escosse boo demee da ngay laajte commandant Sarr commandant Sarr oui c'est ça mi ngi fi nekk fii ci yoonu Cambérène booy dem Kaas ba. mun naa ko gis léegi ah léegi brigade d'Escos. kon Sénégal moom wax sa bop mooy métti ñi faj sa ginnaaw ah. ndeysaan ndogalu yàlla. jóg noppoo ma laaj la ban ana nga judd lan cinquante trois <laughs> lépp lu ma maa ngi koy tuur tey jéggalu billaahi cinquante trois laa ila yow yaag Senghor tuuti rek tuutal tey ngeen ngeen ngeen tàppaloo ci at ba les premiers hommes sont de ah ngeen jëf man ngeen a toog <coughs> man ngeen a toog laa wax de man ngeen a toog ci nga bokk <laughs> xanaa doo dégg doo dégg del dégg nag waa kañ ah yéen ñi fi soli lonet na ngeen ko dindi <laughs> sol na mbaxana waaye bu laal bopp de dafa teeñ de góor gi sa mbaxana mi na dañ <laughs> dañuy naaw yow laa na dañ ay ay ak faal yow yamal bàyyi faalu pël fan <laughs> on commence waay <laughs> bàyyi faalu pël pardon stylo on commence le tribunal le tout nouveau tribunal de Rirou Tribunal a affaire à juger aujourd'hui Il s'agit de Babacar Sow xabaar ay waay ay waay ndax da ngaa seere da nga seere ah naa baar ji lan la da nga seere ah déedéet waaye tamit nag ah ah sa dënn gàtt nii nga mën a waxee fu moo yee fermé ana Babacar Sow ah indil ma ko yow ah lii nag déedéet waaye tam jàppale ma ci yow yaa war a toll ni sa morom yi boo ko bootee yàqu de boo ko bootee yàqu de. pardon ndig dafa seer abal rek. ndig abal mu wàcc ndig daa seer diis na de diis na de. Eh, waa ilaha illallah. fay yow. nii la mel. laaj ministère bi daf ñu yàq wala daf ñu miin ba ñu indi lii. ñi nga xam boo tasee ñoom gudd ñu laaj la këll. gën dëgg de bu subaa naa ko daaneel de. eh dalay ray. dalay ray. góor ge eh, kii mooy kan moom. Babacar Sow la. Hmm. bu ma këm waaye yow course bi ñu indil ci bi tam lan la moom nu mu tudd ci sax ku bees ki monsieur le ministre waaw bu fekkee ci lay lu sama yoon man waay non waay ah, daf ñu saraxe ah waaw déedéet waay yow bu nu sacrifié waay ah, ma la jox ah Babacar Sow looy yey yàbbi ko sa poos yàbbil mu dugg sa poos ma gis na dugg sa poos taw soo foo na sa mbaxana daj ak sa weer jog dañ na weeri dañ dama am yob boo am yobee di nga gumba tey na dañ fis tey ki ci topp kan ana daaw da jaañ daaw da jaañ ah. daaw ana nga waaye yow da nii nga mujj tolloo yoo tax ñu yeb la yaakaar ne ku ne nga ah, balaa may ju eh eh eh fii waxtaan indiwuñu ah. discipline rek Ah, Daouda Diagne na nga def yaa fi ndigoor googu yow fi nan la demee tu lèves la main droite et tu dis que li nga wax lépp c'est vérité <laughs> non ma gisee. j'enlève ma main droite ah. bi lépp lu ma fi bi nga réer bi def ak ma jigéen ma ca kër ga. c'est monsieur le président moi je vis yaa xam. bon tëggkatu jéembe la ma foofu def naa fa cinq ans. Eh, durant les cinq ans que je fais là-bas. oui oui ñu uh-huh. moom moo la ko jaay. moom moo ko jaay si dëgg la dëgg la. tu vois dëgg la bon. Mm-hmm. à mon retour. comme mm-hmm. dama euh, ma ñëwee. Uh-huh. xaw ma doon gént ma ñëw fekk. Euh, benn vieux la mu tekk ci terrain bi di ko tabax. déedéet waay. maçon yi miiré nañ ko la tiré nañ. Eh. terrain bon ça m'a fait si mal. boo xëy eh, may ma may ma. boo xiifee nga lekk di ma lekk nu ah. ku ñu jëlee loolu la jox ah. waaw déedéet waaye tamit nga yëy kër di eh, eh, eh, góor gi góor fii loo fi waxuloon doo doo ko fi wax ah, continue yow ma ñëwee ci bi ça m'a surpris ma mm-hmm. di ma këlle këlle góor gi ma fa fekk aussi tamit mu ne moom moom terrain bi il m'a même insulté dëgg je ne sais pas quoi lui dire bien rédigé bien si la fait correctement yoon am na ci réew mi. sa waay yow kii doon góol. kii góol la woon léegi day tëgg jëmbe dàq nañ ko ca terrain ba jant. Ah, jant góol góol ñu dàq ko. ah Babacar Sow dégg nga li la waxal. waaw bu baax nu mu fa demee ngay loqati guro noonu. waaw <laughs> bon. kii. dafa dama ko jaay jaay kër juróom benn million laa ko jaayee. ñaata. juróom benn million. six millions. waaw six doom déglu rek man man kër moom. juróom benn million laa ko jaayee. waaw kër googu pàkk sama sama ba ma war a yettee foofu laa ko mm-hmm. defoon. Mm-hmm. pàkk looy ba loon maanaam. Uh-huh. léegi nag looy ba bu doxatul foore ba dañ ko tëj ma jaay teene bi moom mi laa ko jaay. a ah léegi lu mu bëggaat nag. ana keneen ki nga jaay teene bi lu mu wax. keneen kan. jaayoo kenn teene. mukk yàlla tere. xaram xaram du naan sàngara mu mukk mukk amul amul am na ko muy woo wala. ma soog si laanam léegi lépp leer Daouda Diagne Daouda Diagne eh Daouda Diagne dama toog nga mel ni jëmbe bu ndaw mosoo gi. naam bisimilah. xam nga góor googu. bu baax kay. Ah, kay. foo nga xame monsieur le président. waaw maa ngi yëkkati sama loxo di waat ni lépp lu ma fi wax dëgg la. jërëjëf Sylla. man bawal laa jóge. waaw Diourbel ma fi ñëw mbuus mu bële laa fi andi. ndeysaan. jaay naa lu ne. dëgg la socc tàngal pitikolaa guro. wallaay ndeysaan. ba moom sama xaalis. jàmbaar ñëw ci kii. <laughs> na ko damaa bëgg kër. waaw mu ne ma bari woon naa fi ay ndono. jaay ma terrain fukki millions yi manqué benn. ma jënd tàmbalee tabax benn xale waaw benn xale jóge Europe defe bu jógee ci ni ñi weex ñi war na maa mën a xooxatal man bawal bawal bii <laughs> moo ni ko ni fii maa ko moom wallaay waaw ndax ku ne xam na ñun ci lay duñ tooñ am nga këyit waaw am naa ak dawante bu leer ak dawante la dawante moo ngi nii photocopie woon naa ko jox sama avocat bii di ma waxal. waaw sama ak dawante ngi nii. jërëjëf ak dawante bu leer laa yor. jërëjëf doy na ñeme yàlla. eh doy na eh si la bu ko tooy wax nga ba pare kay loo ko wax. wallaay wallaay wallaay ndeysaan kon nag dafa ah, soogi ma soogi. wallaay jërëjëf wax ji leer na mën ngaa toog. wallaay wallaay ndeysaan wallaay. mën ngaa toogi eh ma soogi mën ngaa toogi. ndax am keneen kuy dikka. mi ngi may saaga de. Ah. président mi ngi saaga de. moo tay saada lu lox baax na yow bay mel ni sinuwaa noonu waaw baax na sa bët yooyu ni roog da cantal waaw baax na jërëjëf sa bët yooyu di génn bët yi ñëpp génn sa bët yi buqeeku dugg waaw baax na man ngay waxal baax na ah aada ci xole <laughs> aada ci xole moom ba ma <laughs> doomam jaba si yoru fay da def boo ko defee mus de euh, merci monsieur le président monsieur le procureur Euh, monsieur le président. oui. Euh, en 2013. waaw. mon client avait acheté un terrain de 300 mètres carrés. Uh -huh. alors vendu par monsieur Babacar Sow. cinq ans après mu ñibbi si Sénégal pour tabax këram. à sa grande surprise. Mhm. mu dem ci euh, fi terrain bi nekk fekk fa góor gi góor gu ñeme yàlla gi. billaahi taxaw ni moom moom moom terrain bi monsieur le président. et je vous rappelle juste que. Mais en matière de vente de terrain monsieur le président. waaw il y a une logique déjà man mon client. Mhm. ànd na ak ki koy jaay terrain bi ils sont allés devant un notaire ils ont vérifié les papiers. Mm monsieur le président. waaw xanaa alors monsieur le président. Mm -hmm. là on a le titre foncier. waaw juste pour wane la sama euh, sama client moom dafa am ay logique yu mu topp. Mhm. l'attestation de solde. Mhm. le plan cadastre. Mhm. ak reçu frais de bornage. ah moom courtier la. monsieur le président. <laughs> courtier de. je pense que nag comme ni ma ko eh, waxee. je pense eh baal xisanu bi <laughs> baal xisanu bi day fóot caleçon de koy fóot daf cat fóot fóot bam sat baal xisanu wala ngay teel a tëdd. sama téléphone laa doon da ngay xisanu waaw d'accord ba tey waxal rek da ngay xisanu. ba tey monsieur au travail. lan la boo xiifee nga yëy nu. waaye de waaye déedéet waaye jot tamit lu ma mënta xiif man. je peux. waaye Powal waaye ñuy def ak kii. ba nga laalaan. un peu de sérieux quand même au travail. te yoon newu ci loolu waxal rek. d'accord te nga fóot sa loolu. ok d'accord moo gën. beneen affaire bi mooy monsieur le président. waaw. Euh, moment bi litige bi amee. le commandant Sarr de la gendarmerie d'Escos. Mm-hmm. bi mu ñëwee dans les lieux dafa ordonné ñaari côté yëpp. di leen bu fa nañ nañu suspendre travaux yëpp. ñu lijjanti litige bi ba pare. Mm-hmm. mais góor gi il a pas respecté ça. dëgg la objection yow. il a continuer à faire ses travaux. Mmh. je pense que, monsieur le président, la loi 64-46 waaw du 17 juin 1964. dëggal lii am na lu mu wax ci litige foncier. lu mu ja wax. yaa ma ko gën a xam. waaw à moins que sa jàng bañ a egg foofu. monsieur le président faites appliquer la loi s'il vous plaît. courtier eh. je vous remercie. yaa may appliquer loi yow di ma wax ndax xam naa ko wala jàng. mais si vous n'êtes pas capable de le ah, a pas de ah, kay. je sais que say jàng soriwul. loo ca wax. Eh, nguur yi ca la parole yow. nguur yi ban. nguur yi dina ci bonjour à tout le monde. merci maître monsieur le président. oui. monsieur Sow est un escroc. déggal parce que ce qu'il devient de faire c'est un escroquerie. wallaay. faux et usage de faux. Mhm. abus de confiance. parce que sama client dafa ko wóolu ah. mu jaay ko terrain à 9 millions mu profité ci la fait que sama client jàngul. Ah, pour mu jox lu dul acte de vente. naka ngay jaayee nit kër nga koy jox acte de vente kese te joxoo ko ay papier. parce que xam na ne sama client jàngul. monsieur le président moom nee ne xamul sama client alors que moo ko jaay terrain bi à 9 millions ba pare jox ko acte de vente boo xam ne moom ci boppam ko signé alors. silence silence. sama client fan la jëlee acte de vente bi monsieur Sow nge c'est parce que moo ko ko Sénégal dañu war a bàyyi boo amee alal ñu teg la ci kaw. Mhm. objection monsieur le président objection désactivé yow. ma eh xoolal xoolal booy waxaat di génn maa la ko wax <laughs> booy waxaat di génn ca biti ba mu xonq na nga ŋaaŋaat na nga ŋaaŋaat vas-y yow. Euh, votre honneur man ce que je demande c'est très simple ah. waaw. nañu bàyyi sama client mu yeggali travaux yi mu commencé. waaw parce que je vais pas accepter qu'il perde de l'argent mhm. il a acheté 9 millions le terrain il a dépensé 4 millions pour tabax këram. wallaay ndeysaan donc mënuñu arrêter travaux yi nañ ko bàyyi mu yeggali ko. kii mu ngi liggéey nekk ca Espagne di liggéey tabaxu ko kii nekk fii ñàkk liggéeyam ba pare tabax kër gi ñu bëgg ko arrêter travaux yi pourquoi. xam dëkk bi amul loi. Mm-hmm. monsieur <coughs> s'il vous plaît monsieur le président. Mm-hmm. c'est tout ce que je vous demande. votre mm-hmm. honneur je vous remercie merci. merci ah ah, ah ma yow ah ah ah fi mitin la ah yow am nga jëkkër ah? non non ci nga <laughs> mu ne. <laughs> sa kanam gi na benn oto di nga ñam de di mus de waaye yow kii ko la bàyyi xanaa kii boo ko takkee loo jur xanaa ay xori écart ngay jur ba nga waxaat ah bien dit bel dit très bien ah. <laughs> dalal tonn. merci monsieur le président. oui cher maître. Mhm. je vous respecte. dégguma. dama lay nuyu ah, ah, ah, merci. beaucoup. Mhm. monsieur Sow. eh yow eh mënoo yem. président pour ne pas monopoliser la parole. monsieur Cheikh Sow gentleman à la barre. kuy gentleman moom. moom maanaam témoin ñi fekkee. ah moom kii la bu ñu jaay eh eh eh Cheikh Yambar Maane eh eh yow eh eh sëñ bi xam nga lu ma la bëggee kat fii du daayira ngay mel ni mbóot noonu mbóot yooyu di xeeñ. merci sëñ Cheikh yëkkati sa loxo ndeyjoor nga wat ne lépp loo fi wax dëgg lay doon. Euh, maa ngi yëkkati sama loxo. mu ni lépp lu may wax mi dëkk Fass mbaaw xam nga bu baax. kii sa wet. dafa jaay ñaari nit terrain am ñu ko fekkee yow kan nga fekkee ñu koy jaay wala fekk nga ñu ñaar ñëpp ñu leen di jaay. <laughs> waaw man man hmm. euh, sama sama grand bu baax bi nga xam ne waaw yow. yoon ñëw ci xam nga lu soxla. kan nga fekkee ñu koy jaay ci ñaar ñi moom nga fekkee ñu koy jaay à six millions yaa ko fekkee merci mën nga dellu sa place damal toog monsieur Ibrahima Diagne s'il vous plaît kii ci témoin la ah ndeysaan monsieur Diagne ñaaw na di fi nga ne tribunal dëgg rek la ñu soxla <laughs> waaw bëgg nga yëkkati sa loxo joor nga wànne lépp loo fi wax dëgg lay doon waa yow eh eh eh yow eh eh yow ma ñoq yow may nu waay waxal li ngay wax ngay nuyoo. sëñ Diagne sëñ Sow mi taxaw dafa jaay benn terrain ñu ne ñaari nit ndax fekk nga bi koy jaay ñaari nit ñëpp wala kan nga fekkee mu koy jaay. mu jaay. mu jaay daaw da jaañ terrain ki nekk bitim réew maa xam nga ne maa xam nga fi nga taxaw la ah. la. nga taxaw nii. <laughs> xam nga nga nekk soo waxee dëgg xam nañ soo waxul dëgg xam nañ pour laa dernière fois soo bañee nag dee ci bi laa wax waxal dëgg soo bañee dee ci kaso bi na wax dëgg ñoom ñaar nga fekkee ñuy jaay terrain bi wala kan nga fekkee ñoom ñu koy jaay terrain bi monsieur Diagne sama wax du bari pour une dernière fois yow nag la ñuy déglu moom rek nga fekkee mu koy jaay dëgg gi lañ soxla jaay na kii ak kan eh, kon jaay na ñaar eh. ñëpp kon yow fekkee nga mu jaay Moussa Diagne ak Masso dégg nga lii merci mën ngaa dellu sa place ah eh, dama toog jërëjëf silence silence li ñu fi gis affaire njublang la may ñu rek trahison la monsieur Babacar Sow mi toog taxaw dëkk Fass Mbao kii turian bu mag a ba pare li ma gën naqar ci bagage bi mooy kii nekk bitim réew la jaay 6 millions jaay ki ne ci réew daan dooleem ci réew mi li mu am fii la ko amee te génn neuf millions pare jox kayit yu bon li ko waral lépp nag mooy ñàkk jàngam mais boo lëkkatee yow boo jàngul soo dugg ci lu mel ni kayit wutal ku jàng mu xoolal la ñu ngi rey seen bopp nag lan mooy seen rôle xam léegi comme yaa fi ne yàlla teg la fi ngay sunu kilifa faites appliquer ce qui est de droit merci beaucoup monsieur le président ah jërëjëf ce Euh, <coughs> dama tàmbalee ci ana ku sew ki koyeku jantalimaan xaw ma ah Cheikh Patimaan noo lew waaw eh eh ma ñu ko topp ci yow eh yow laay waxal eh yow kii topp ci sawa ñëwul waaw ma ne nga ñëw ah, yéen ñaar ñii kii wax la balaa may jublu ci kii ci digg bi yee ñaar ñii comme sama yaram neexul te dama am fu ma war a dem wax lu dul dëgg baaxul dinaa leen musal ku ne ñaari weeri kaso hmm? non man kii sama xarit beneen bi ci topp mooy yow mii sa bëti ngay mel ni doomi maawo tiriyan baaxul kër boo koy jaay da koy jaay ci lu légal jaay ko benn nit hmm. wutal ko këyit hmm. dañ ko jaay ca ca def ana ngor jàngul rek nga jël neuf millions nga dang da ko koy delloo na nga ko delloo xaalisam bu ci ñaar dërëm def. 13 millions la de. waaw. man jaay ma ko de. yaa xam. man kii laa jaay man jaay ma la koo jaay. kii nga jaay ko këyit bu baax kii nga doog këyit bu bon. ma soogi mi na nga ko delloo xaalisam ba dërëm du ci def. say mbokk nag ñoo indi xaalis bi ndax di nga ñam ati kaso. man sa fukki junni yi ma joxoon après dinaa ko delloo. ba pare ma tegal ci amaana juróomi million yoo xam da nga ko koy ndàmpaayee. dama ko am fu ko jàppale ko yóbbul ñu ci biir waa kay demal demal demal yow moom xam naa ni yow comme nampo woon bi ngay gone fi ngay deewee rek eh cheikh bi oh eh, jaala ma ni jaala ma ni eh wuy ma wuy ma yow mën ngaa jàll mën noo jàll essayé ma sauvé demal mu mel ni mbóot ah jërë ngeen jëf yéen laa mën ngeen yokk